Modou Ndiaye leen boole du yomb 4 millions la leen tegal ku ci ne daa xam ko moo ko ëffal mais buur promoteur lu tax mu mën a ëffalaate. waaw dina du yomb ci ñoom ñaar ñëpp. Blindé Blindé buur. barke yonent bi Blindé Blindé <laughs> Cey Mouhamadou Fadel. sama waa ji bu Dakar Buzz. mooy yëgale takk ñaareelam. loolu la 10 la koy def. boobu Fadel bu Dakar boobu sooy ba yàlla ci yàlla def barke Fadel ak lii ba wax bi wax yow Cheikh Mouhamadou Fadel moo dundee sa takk bi la bis. xalaat ñaan yàlla téyel ba sa làmmiñ wi ndax da ngay yokkee wax da ngay ruux lay wax man takku ba takkulu ma man jàmm laa woote xëy na boo ko buñ ko takkee sa kër lay wàcc man dafa ko sama kër ah, man jàmm laa bëgg ñu ngi ci combat bi ba tey Blindé Libidor dina ko wër ndomba da koy daan da koy daan est daan na ko samp na bopp ba wala déet. jël amagul ba léegi Fadel de. quatre appuis am na. Ah. quatre appuis doole doxul jàmm. Libidor daan ko. ah yow tam donc Pawla doxul jàmm. doole doxul jàmm. dina ñëw sa takk ñaareel.